wax dëgg fa yàlla Ousmane Diagne mii ballu fii di di ngand ngandalu tout ce qui a réalisé ci domaine santé éducation réfection de euh, logement ICP construction donc de postes de santé tout ça PACASEN moo ko financé et PACASEN c'est l'état du Sénégal suñu ne état nag la commune c'est un démembrement mais du coobaree boppam en aucun cas gisul maanaam amu ci benn mérite nga bëgg wax non am na ci mérite parce que ah. y a des de Benno suñuy nit yu nekk le régime sortant qui a pensé à les accompagner parce que seen c'est c'est chaque année minimum ay cent deux cent millions wala cent quatre-vingts millions pour des communes éligibles mhm. loolu nag du lu ndaw ci ngay defaree ay postes de santé postes de santé yi mu defar yëpp pour le dire loolu la ko defaree mais gis ñu en aucun cas moom en tant que maire mu jël avion dem négocier quelque chose voilà parce que au-delà de l'État il a la coopération mais depuis deux ans boo toogee war nga mën a voyager le monde Thiès dëkku jàmm la Thiès c'est une région minière Thiès c'est une ville boo xam ne macha allah yaatu na y a des projets mais da ngay génn on va de petites communes ci àll bi ay meewaan yooyu seen maire di génn di def à l'étranger décrocher des financements. Mhm. yow nga nekk Thiès dëkk bu dëkk xam-xam bu toll noonu yow deux ans mosoo génn fenn ci àdduna dem. bon hormis maire de la ville gis nañ ko mu dem heure bi moment bi ma waxee mu ngi Turquie. Mhm. gis nañ ko mu dem France gis nañ ko mu dem un peu sax di laax anglais yu neex yooyu. Mhm. mais au moins au moins le maire de la ville gis nañ ko mu dem Colorado mu dem mais les autres là wax dëgg fi yàlla xaw ma qu'est-ce les arrive. Mm-hmm.